sëñ bi ñëw ci beneen combat boo xam ne foofu la ñuy jeexalee ci combat ñëw ci actualité politique muy diggante euh, Modou Lo Ama Baldé coow li bëri na combat boo xam ne comme guerre Iran Irak face à face munta am te man mii sama boobu dama ci am tiitaangeel nan nga ci Pa Maguette ci ñu bañ a sori combat boobu dinañ ko arrangé ci neneen nu du sax ay sëgg bëree maanaam combat bi man gisuma mu am hmm. waaw ndax wu ma nag ci problème yi am de. ndax gis nañ fi combat Balla Gaye bomb Yékini waaw xeex yu métti métti métti métti te yii sax daanaka gars yi ñooy xeex ci air bi nii rek waaye laalante ba léegi mais dama lay xamal ne combat la boo xamante ni mistik bi ko bi ko bi ko téye ci safara lañ ko def te safara soosu du fay ba combat bi di taxaw ah. waaw. kan moo téye Balde. waaw te Ama Balde gis naa ci moom ñetti nit yoo xamante ni gisewu ma leen Sénégal nag hmm. Gàmbi laa leen gisee Basse ay sëriñam ay sëriñam bu fekkee Ama Balde bañul dara mbër du ko war ci làmb ci jamono ji non bu fekkee moom bañul bañul bañul mooy lañ koy proposer ak la ñuy wax ak moom da ah, ngay sëriñ yi di proposer bu fekkee bañu ko mbër mu du ko daan déedéet xanaa luñ koy proposé mbaa du safaan eh, waaw non loolu loolu moom ay mbir la yoo xamante ni man dama ko séq ak ñoom muy ay ay xeetu gàllaaj yoo xamante ni gisaguma ko Sénégal fii. ñoom. ñoom Gambie lañ nekk. kon waaw man bëgg nekk président. waaw incha allah foofu pas Maguette dëkk boobu ci contour euh, euh, kii Papa Ama Balde laa dajeek ñoom foofu ba ma duggee ma waxtaan ak ñi nga xam ne ne tey ñooñu ñoo taxoon ma dem fa kër gi ma daloon dañ na ma Cheikh Mouhamed mën a naam ñu ne sa mbër bii de bu bañul dara billaahi wallahi tallaahi benn mbër dootul ko war ci kaw waaw te boobu euh, euh, euh, maanaam maanaam maanaam eh, lañ ma wax ci làmb ji man ba ma ñëwee sëñ Fallou ngi nii du ma bàyyi ma fen dama ko ne bu bi di siffler Papa Sow dina arrière Ama Baldé dina topp ci koom te dina ko dóor dina ko jàpp te dina ko daan te bu ko daanul wax nañ ma lii dal Papa Sow waaw maanaam Papa Sow dina ci jëlee ay blessures yu méttee métti métti man loolu wax nañ ma ko ci te foofu lañ ma ko waxee te nañ ma expliquer les combat bi te boobu ñëwaguma Sénégal de noonu laa gisee combat bi te gis nga ba ma ñëwee ba ci frontière Kaarang bi daje naa fa ak ay mbokk Ama Balde muy muy muy muy Amdalaay daje naa ak ñoom foofu waaw moo tax ma xamal la ne euh, combat bi lim jaral Ama Balde maanaam jarulu ko Modou Lo waxuñ ci cadre respecté na làmb ji mais ci wàllu mystique ak lim laaj ci ay financement dafa bari do Modou Lo du ko ci def ndax tollul tot ci làmb fi muy yëkkatee ay non non non foofu yaa ngi dégg léegi nag pour nga xam loolu mooy dafa am lu bari loo xamante ni tey soo ko ci gisee la ngay gis ci làmb ji nekkut làmb juy am waaw lim laaj loolu promoteur bi lay ñaan mu fexe génn sarax yooyu ñu fay safara si ñu fay leen bañ sedd guy waa Pikine nag fay leen safara si ama loolu li tax noonu fay ko ndax ñu bëre si jàmm ak salaam dama ne loolu bu fayul barke alxuraanul karim làmb ji du am li may wax nii nag ya xooluma ci benn doomu aadama te waxuma ngir ëllëg leneen na déedéet man yàlla moo tax may wax te lu ma xam laay wax ak li nga xam ne gis naa ko ndax man damay dox te Fuladu gi Ama Baldé dëkk ba Bisaawo ci mbokk ndaam yooyu dama fa jàngee lu bare bari ma xam leen xam goo xamante ni euh, def naa ci ñoom sept ans ci saare saare yooyu ngay dégg juróom-ñaari at laa fa def ma miin ko lool xam leen lool xam liñ mën ak liñ xam kon waxuma ngir diw wala ngir ma sàmba ngir ma demba parcelle ngeen ma fekk damay wax li ma xam kon nag loolu liñ la ci xamal mooy combat bi jamono jii su fekkee bëgg nañ mu am sotti ma wax la kii daan dama la ne nañ fay lam euh, safar si nga ñëwaat fi dëkk ma sa micro ma wax la kombaa bi ni muy amee ak kii daan incha allah. waaw.